Sénégal ndaanaan bi yegsi na kookal la ñu ne la numéro un kookal la Fallou Ndiaye promoteur bu mag bi ki nga xamante mbokk yi bu yegsee amateur kontaan xam ngeen lu mu defati dafa jël ñaari xale yi nga xamante mbokk yi ñoo toll ci classe d'examen kookal la ñu ne Boy Diop soow mi mbokk yi moom la jël boole kookkan mbawor mbawor bi kookal la ñu ne jeex jàmm mbokk yi Fallou Ndiaye def na lu rëy képp kuy amateur mbokk yi le 20 août sa xol dina seet a xarañ ci làmb la jël boole gineew mbokk yi kooku la ñu sargalee bis bi daa dem boole ko ak Boy loolu mooy combat spécial ba boobu it mi ngi ko duppee ki nga xamante mooy le ministre de la jeunesse de l'emploi et de l'entrepreneuriat mbokk yi xam ngeen lu neex ci bis bi ak Nagastër dañ ko sargalee ki nga xamante ne bu lamb yeeg fii da cee am wàllu bu rëy bokkal la ne Sa Touba xaritu lamb ji Sa Touba mi nga xamante ni képp kuy mbër sooy bëri di nga tudd Sa Touba woo ko mu jàppaleel ci bis bi waaye mbokk yi fàllu daajal combat Zoss 2 ak Siteu bu anti sargale ko xew-xewu lamb drapeau bi du bi mooy troisième édition bi mbokk moo tax Fallou Ndiaye lu mu def kolleera cey bi su la fee ñii la ci teg mbokk yi ñagas 2 dina fa laale ak ki nga xamante ni mooy Bruce Lee Siteu bu anti dina fa laale ak Zoss mbokk yi moom ak petit l'enfant ñoo fay daje jinne bu ndaw moom ak juldal dëra mbokk yi naturel dina fa laale ak Nes 2 di Modou Yacine teel a ñàkk baay dina fa ak ki nga xamante ne mooy caati li ngeer Bombardier 2 dina fa laale ak doomu mi na mbokk yi rek ba mooy tijji bis ba mook internet tey bisu le 20 Fallou Ndiaye daal saa bu yegsee képp kuy amateur sa xol sedd bisu le 20 kuy amateur boo yéexee di nga tardé ndax xoolal en direct lay doon Kewel TV ak yeneen plateforme yi nga xamante ne ñoom la Fall di liggéeyal sama gaañi le 20 Fallou moo koy yëngal Fils de Balla ngoo grand champion. ça dépend rek. waaw waaw. ça dépend xalaat mooy am na lu mu jàppale Balla. dara amul lan moo koy jàppale. mooy dara nekkul ci xolam. dara amul dara dara nekkul ci musa nekk. loolu sama grand koy manqué respect. pourquoi nu bi. maa ngi fi taxaw ndax amul ñenn ñi ñuy dox tànk tànk jàpp ci sa diggante mais nee na yéen xale yi da ngeen war a jox cër parce que ay rakkam ngeen moom bay na waaram géejawaay waaw ñu ngi yàlla bay suñu waar loolu la ñu ñaan kàddu yi nga wax est-ce que amul dara loo ciy regretté pour lan ñu ko rek oh, loolu ah coow xaw ah, loolu kon dina yombal seen diggante waaw ah, xaw ma ça dépend rek ça dépend rek ça dépend rek. ñu bari nee nañ Fils de Balla dafa màgg jël yoonu bopp. parce que ni muy doxalee nii. question sa bopp sax jël sa yoonu bopp. lu xew fi nekk laa wax rek. li fi nekk laa wax rek nga jël yoonu bopp ah. kon ba léegi kàddu yi nga waxoon da ngay confirmer wax de. amul lenn lu ma gisul jëlee. ok looy conseillé sa grand yi. grand yi nga xam ne la nekk rajo waay. grand yi daal ñu ubbee seen rax. ba kenn doon jënd leen classe. dañ ko seen nationale pour ñu mën seen rek kon ndax li ñu xoolee ñu taxaw si. entraînement ñoo si jiitu combat ñoo si jiitu. mais fii sa Balla ñu bëri dañ ne Balla Gaye lu mu demoon kër Boy Niang moo waral coow lépp est-ce que loolu noonu da nga koy dëgg loolu sama yoon nekku si loolu ñoom ñaar la hmm. loolu du ma si wax sama yoon nekku si dana jàpp ne kii di Balla Gaye nu mu waroon uufee rakam bi uufee ko noonu non man waxuma uuf la dama ne mbër da ngay mel ni comme ñoom Modou Lo la wax comme ni wooy mënaan xalam uuf say rak ñëpp bool ñëpp say rak uuf leen loolu loolu yàlla def na ko ba pare

pour ne leen ça dépend rek bu demee si biir rek xool suñu yaay carrière u Fils de Balla ci kanam est-ce que digganteem ak Balla Gaye dina rafet. waaw ah, xaw ma ne ça dépend rek. waaw mais yow kon ça dépend ci gars yi rek. Fils de Balla Fils de Balla. Sa Thiès dafa ñëw léegi taalal ko ni ko. waaw laaj sa diggante ak Balla Gaye. mu ne damay ñaan Fils de Balla buy waxati ci Balla mu xool ci ma ndax ni ngeen mel yéen ñaar. waaw moo tax loolu war nañu koy wax pour dara sax Salif sama voilà Salif dara sama nit la sama xarit la sama lépp la. Salif ko moom gisuñu xool ma kon mënu ma wax dara di teg ñëw da ko teg si maxam su ma demee sax naa ko jox benn cër bi moom moo tax amul lenn loolu lu ma si tontu du si wax si diggante Balla ak Fils de Balla noonu la léegi ñoom sa yaakaar ni instant yi Fils de Balla jël na avance waaw ah, am naa combat waaw waaw am naa combat incha allah waaw sama pat waa sama papa moo ko dëgg Kañ production waaw moo ko dëgg Kañ production mais ndax choix bi nekk la loolu moo fi sës moo fi moo fi sës kon sa xale ngoon si ñeneen bi waaw am na ñeneen ñu nekkoon wax dëgg yàlla mais sama moom la ma yàlla booleel naa bëri après a xool. mais pourquoi moom sax gars yi dañ laa ragal wala. xool xool na Fils de Balla mu bañ cee. mais Fils de Balla. mais waajtaayu combat bi fan nga ko a eh? a. de Balla. Fils de Balla ngay la nekk. mooy na fa. dëgg la muru amul droit ñu ñu ànd rek Balla mënu pap ca écurie ñoom Babacar écurie Mor Faram ku ne am na droit ñëw écurie Balla Gaye ñun am na droit dem seen écurie entraîné géej waay ñu ñëpp benn lañ écurie bu ne la ñu dem kontaan sa kàddu Balla Gaye mënul la xaj écurie Balla Gaye dafa ma moom fa boo ko yem dëgg la mais day neex seen diggante ak mais ah, loolu yëpp problème mais fils de Balla fi sa baal problème la rus ci àll bi nga laaj tuuti rek boo xoolee jamono ji la rus sore woo parce que zéro mètre mu si ginnaaw kër kër la dëkk ci jamono ji ñu toll mais sa nga jël si combat bi passé waaw mais loolu da la rus mbër la champion parce day bëri ne mais buñ fàtte lañ fi def nee na nga amoon problème doon ngeen te mën a jël avance ñëw ñëw gëm si mu gën man man am na problème mu bi pare nañ ko nga liggéey ceeb Balla Gaye. waaye déggoo lu mu fu mu sant rek laa ciy liggéeyal fu ma ci sant rek laa ciy liggéeyal mais lamb ji Balla Gaye ci doole ko day gën a yokku. fu ma ci sant rek laa ciy su ma ci sant rek Alioune Seye Alioune Seye daal laa ñu gis après sa sortie bi sa mag booboo kal ndey Papi génn moom tamit am kàddu yoo xam ne wax na ko kàddu yooyu sa grand frère wax naka nga ko jàpp. waaw moom waaw dara dara day sotti dara day sotti ñoo bokk ndey ak baay dafay raxam lu ko métti am na droit génn wax dëgg loolu la nag sama mag la ñoo bokk ndey ak baay dama bëgg dama bëgg moom sama sama mais yàgg Balla Gaye ci biir sa sa mag sa xarit. taxaw fii si naaj bi waaye. mais di ko nuyu jox ko loxo. nañ dem ci baas bi liir liir mu ñëw ñëw. Eh, nañ dem liir voilà liir mu ñëw. yéen ñëpp dama leen a ñaan. yéen journaliste yi. kii sama rakk la sama doom la. liir dama nekk ci yoonu ma dem ma dem ci. kii am na droit fekk magam toog ñëw la ko jox ko loxo loolu loolu kenn nekk kii suma rakk la kii yaakaaru Balla Gaye am ci géejawaay kii na ko am ci géejawaay léegi nag damaa bëgg ngir yàlla rasul la rek dama leen ko jaar ngeen jeex pare ba pare ah waaye ba ci biir seen mas mas Serigne Cissé mu sëñ Babacar Sy jàmm rek a fi am ñu tuddee taxaw ci kaw màggal si bu nga xam ne ci màggal si waxtaan yàlla na suñu ay alamin Muhammad alamin Muhammad mbokki Sénégal ndaanaan bi yegsi na kookal la ñu ne la numéro un kookal la Fallou promoteur bu mag bi ki nga xamante ne mbokk yi bu yegsee amateur kontaan xam ngeen lu mu defati dafa jël ñaari xale yi nga xamante ne yi ñoo toll ci classe d'examen kookal la ñu ne booy jóob kaw sow mi yi la jël sa xol dina seet a xarañ la jël boole leen ci bis bi nga xamante moom la jël delloo ko njukkal kan ñu ne Pape Malick Ndour le ministre de la jeunesse de l'entrepreneuriat et l'emploi PCD de gin gi neew mbokk yi kooku la loolu mooy combat spécial ba boobu mi ngi ko duppee ki nga xamante ne mooy le ministre de la jeunesse de l'emploi et de l'entrepreneuriat mbokk yi xam ngeen lu neex ci bis Bruce Lee ak Ñagas dañ ko sargalee ki nga xamante ne nii bu lamb yegsee fii da cee am wàllu bu rëy la ñu Sa Touba xaritu lamb ji Sa Touba mi nga xamante ni képp kuy mbër sooy bëri di nga Sa Touba woo ko mu jàppale ci bis bi waaye mbokk yi fàllu yamul foofu daajal combat Zoss ko xew-xewu lamb drapeau bi du bi mooy troisième édition bi mbokk yi moo tax Fallou Ndiaye lu mu la ci teg mbokk yi Ñagas dina fa laale ak ki nga xamante mooy Bruce Lee Siteu bu anti dina fa laale ak mbokk yi yëllee moom ak petit lafa ñoo fay daje jinne bu ndaw moom ak juldal de mbokk yi naturel dina fa laale ak nes de ci Modou Yacine teel a ñàkk baay dina fa ak ki nga xamante ne mooy caati lu ngeer Bombardier 2 dina fa laale ak doomu mi na mbokk yi rek ko baa mooy tijji bis ba mook internet tey bisu le 20 Fallou Ndiaye daal yegsee képp kuy amateur sa xol sedd bisu le 20 kuy amateur boo yéexee di nga tardé ndax xoolal en direct lay doon Kewel TV ak yeneen plateforme yi nga xamante ne ñoom la Fall di liggéeyal sama gaañi le 20 Fallou moo koy yëngal